biirum environnement Euh, nous avons la compétence dans la gestion des déchets solides. luñ ci waxtaanee nag état Sénégal Promojet banque mondiale ak ñi mu àndal ñëpp association des maires du Sénégal ñu jóge fu nekk ñoo ñëw wekku ci loi d'orientation bi ngir sobu ci wàllu mbalit ak lu ni mel. def nañu 150 forums te tamit euh, mobiliser nañu nit ñu bëree bëri. personne. lu ñu bëgg a def wane nañ ko juróomi région fanweer ak ñaari commune li ñu def tamit. gis nañu ko fii juróom-ñaari millions ci ñu dëkk biir Sénégal mu soxal leen deux cent six ci suñu xaalis moom la ñu génnee ñu bëgg a jëmmal wéyal jox doole mbir mi. Promojet njëriñam moom mooy aar li nga xamante ni moom mooy àll bi ak fu ñu dundee euh, ba noppi euh, di fagaru ci mbal. am na ñu fi def ay laaj. Quelle est ñun lan mooy suñu njëriñ ci biir. am ñu leen tontu. c'est lu ñu bëgg moom moo di fépp ci Sénégal ñu mën fa taxaw bu ko defee politique publique yi ñëpp mën cee gis seen bopp. foog ñu impliquer d'abord collectivité locale bi te gestion ndax la nga xamante ne ndax gestion ordure traitement des ordures nekkul benn affaire bu saisonnière. loolu yëpp ay proposition lal ko. bu njëkk da nga doon gis oto yi di romb di mbuub di dem maire bi du xam sax ñii lan la ñuy def ak naka lañu koy defee. loolu nag waxtaan nañ ci ñu ngi ciy trouver ay solutions. collectivités locales yi nag lëkkaloo ak Promojet. plus simple c'est de doter chaque commune un dispositif. ñoom ñu ne 775 agents dinañ leen former ñaxaat leen bu baax a baax ngir ñu xam lan mooy mbalit ak njariñam bu ko defee Sénégal mën a yaxan